ويوم يعض الظالم على يديه bokk yi seen seen Nihma TV moo leen indil ab émission bu bees bu tudd Settantal di émission boo xam ne dañu fas yéene di leen ko dégtal ci ayu bés yu ne tey nag kiñ ciy dalal موي شيخ مبكي ساخو وكان الشيطان للإنسان خذولا